crois wax ji mbokk nooto bi ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo animé jataayu tey bi ak caam li mu jot a wax je crois que amul guddal bu ci des li ñuy wax rek mooy kontaan nañ trop maire kontaan na trop moom ak euh, conseil municipal bi ci lëkkaloo bi nga xam ne moom moo am diggante waa Pachiptik ak commune Ngexoox lawal ko ci yeneen gox yoo xam ne du ngee fu demee ni ki nootu muy suñu mbokk yi ñu invité tey ñu ñëw teewe léegi li ñu war a jàpp comme maanaam ay firnde yu wéer mooy ay leçon mooy que ne mbokk mi nga xam ne mooy Laurent bi mu demee wane liñ fi jot a def ci at yële passé je crois que wane ngeen ne loolu ñu leen jiimoon a jox comme xam-xam lu bari des na ci te yéen koy jëfe su loolu wéyee mooy après jël nañ wane par exemple lépp li nga xam ne moom moo war a nekk ci gox yi nga xam ne tey moom moo am ci Sénégal muy ay commune wala ay communauté rurale te communauté rurale dafa war a bàyyi dafa war a dem dañ yëpp nekk ay commune kon li nga xam ne moom lañ ñu sas foofu mooy que ni nit ñi boddante warul a am ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci benn dëkk boddante boobu nag suñ koy wax dem nañ wax problème mu laago yi parce que man gis naa par exemple bi ñuy jàngale fii ci CM bi da ngay gis ab xale boo xam ne dafa la fañ nekk buntu këram xale yi moromam yi nga xam ne ñoo maase moom di dem école moom mu toog ci pënd bi mais dafa a jàng comme ñeneen ñi war a jàng loolu waru garu nguur gi la waru garu aussi groupement d'intérêt économique yi ngeen doon la parce que képp ku ci waroon a jéem a dem pour def projet waroon nga mën a dem ba vraiment te ñi nga xam ne ñooy dimbali réew yi nga xam ne dañoo néew doole pare nañ pour loolu di ko financé pour mu am maanaam li ñuy wax éducation inclusive maanaam ñëpp vraiment ñëw ñoo war a am éducation rawatina laago yi laago yi nag suñ koy wax tëx yaa ngi ci muuma yaa ngi ci ñi lafañ ak ñeneen ak ñeneen kon ñoom dañoo am warugar ci biir Sénégal kon loolu ab tegtal la boo xam ne vraiment war nañ ko yóbbaale muy leçon képp ku ci yëngatu daal ba def ci projet yaakaar naa ne soo demee ci ñi koy saytu danga ci gis nga ne ñu ne aussi problème mu transparence transparence nag ca kër ga la commencé avant muy ñëw même ci gox bi nga xam ne moom la ñu nekk parce que su fekkee ne dañ ñuy jox suba su nekk dépense dépense bi ñu dem fas li nga xam ne moo ci ëpp dem ci donc di ko defee leneen bàyyi li nga xam ne moom la nit ñi war a dundee ci biir kër gi aussi du dox loolu benn exemple rek laay joxe kon foofu tam leeral war na fa am te képp kuy citoyen war nga leeral fépp foo xam ne nekk fa am responsabilité suñu jëlee aussi démocratie démocratie mooy dañoo war a yem sañ-sañ ñun ñëpp. sañ-sañ nag mooy képp koo am xalaat war nga koo mën a indi ci fi ndaje li vraiment wax ko nit ñi aussi déglu la jël na su fekkee ne moom mooy li gën vraiment nit ñi jëfe ko wax nañ aussi defe naa li ñuy wax euh, bon gouvernance bon gouvernance presque moom moo ëmb lépp parce que bon gouvernance mooy ni ñu war a doxalee te nga xam ne daal kenn du ñu ne daf ñuy joxoñ baaraam naan kii di li muy def du dëgg kii li muy def du yoon jubalul dafa lëndëm li muy def ainsi de kon suñu leen loolu yëpp vraiment ñun ñëpp suba su nekk nag suñu tegee suñu tànk di jëfee noonu yaakaar naa ni réew mi day jëm kanam rawatina suñu gox bu mel ni Ngeexoox wala nootu bi nga xam ne suñu mbokk yi fa lañ jóge man donc ci gàttal loolu rek laay wax di leen ñaanal ngeen delloo jàmm ci gox yi ngeen euh, jógee mais nag jéem a jëfee vraiment loolu nga xam ne mooy mbokk yi li ñu jox jéem a wan ci wàllu euh, li nga xam ne tey adduna bi yëpp ci loolu la ñuy yëngatu. bonne gouvernance transparence mbirum genre wala donc démocratie kon man maa ngi leen di gërëm di leen sant te di wax ci turu maire ne kon tëj nañ atelier bi nga xam ne moo doon atelier de formation bi nga xam ne Pagectim mooy ñëw defal ñu ko te ñu yaakaar ne du yem ci bii comme ni ko mbokk mi waxee vraiment dañu bëgg a ànd ak ñoom ba abada daay manta